Fidèle Info, votre chaîne de préférence. asalaamaaleykum fidèle internaute képp ku ñu top à travers la Fidèle Info ñu ngi leen nuyu di leen siyaar tey nak ñu nekkaloon ak benn leader bi nga xamante ne kenn doot ko présenté ci Kër Massar ak li ko wër euh, muy euh, monsieur le président Mara président ñu leen. maa leen di fay Fidèle Info. Euh, ñu gis ni coalition. Euh, Diomaye 2024 dafa remporter largement Kër Massar vu que yow ya fi une coalition Diomaye 24 2024, la ngay ñu mëna a présence 2024 ci Kër bon avant tout nous ngi ñoo bon di nuyu le peuple sénégalais bon bu le peuple sénégalais moy leur maturité tay la démocratie sénégalaise est ndam parce que bon dem nañ élection yalla dimbali ñu ñu dem ci élection ci jamm ñëpp yaakaaroon avant les élections élection yi Tang, dans dana métti mais on a vu que élection yi ren la gën a que sa élection yi passé kon loolu c'est la maturité sénégalaise di Noirs wax ni bon ñoo ngi la population massaroise di sant bu baax a baax baax nga la jeunesse les femmes tey ndam li nga xamante la coalition Diomaye président am nañ ko ñom ñoo ci gën contribuer surtout ndaw ñi bon di féliciter le président Diomaye Faye muy euh, la troisième alternative bon di sant bu baax sunu responsable muy madame Mimi Touré Aminata Touré Mimi gis nañ détermination am courage am gis nañ taxawayam ci li nga xamanteni tay moy ndam li ñu am tay ndam li ñu am demb. la coalition jël ndam li parce que bañ daan xeex xeexu troisième mandat moo ci njëkk taxaw ñu jóge foofu rapport bi gis ngeen Mimi détermination mayul dara gouvernement ba tey yàlla may ñu ndam kon dañ ko ci sant bu baax di ko gërëm. sa hmm. présence ci biir Kër Massar ñu gis ni Mimi ture dafa ànd ak président Jo Jo Diomaye Faye 2024 mooy en coalition yow nga nga ànd ak Mimi Touré mi bi tabb la Kër Massar pour nga liggéey ko liggéey bu am liggéey boobu naka la la dikkee yaa ngi

Mara Dieng ci président ASC lu jug ñu ne président Mara Dieng ku feebar ñu ne président Mara Dieng lu nit manqué ñu ne demal ci président Mara Dieng est-ce que du loolu moo tax euh, population Kër Massar jox la bopp. bon xam nga ñun boo ay ndongo lañ rek amaana mënaguñu dañuy jéem te nag population yi même boo leen dara nga jeex ak ñoom jàmm jox leen yitte te ñun loolu lañ seex ak population Kër Massar bon di ñaan yàlla nag ndam lii mu jig ñu parce que mooy développement wu Kër Massar fii ñëpp gis nañ ñi li fi nekkoon bi passé Kër Massar dafa amoon ay problèmes yu bari bon def nañ ñu ñu nekk département 46e département mais teewul ba léegi les problèmes dafay persister surtout moi problème mbëbës bi ñun fi ñu dëkk nii même pas 200 mètres mbëbës kon ñu ñoo gën a souffrir bon changement bi am nii nag ñu ñëpp ñu koy dund ñaan nañ yàlla Kër Massar gis ci boppam ñaan nañ yàlla département Kër Massar gis ci boppam kon loolu ñu ngi koy xaar ci président bi. Diomaye mi ñu fal barki dem te xam naa ne am na vision ak Kër massa parce que démb xam naa ne ba mbir yi commencé Kër massa ba mu tàmbalee lañ ne gagné nañu élection yi kon nag Kër Massar c'est bon coin la boo xamante ni ko ñëpp bàyyi xel te ku bëgg a gagné Dakar buñ tàmbalee démb bañ tàmbalee Kër massa rek dañ xamante ni gagné les élections. effectivement mu def point de presse euh, sànq sànq le président Diomaye le nouveau président de la République euh, mu ne dafay dafay xaarul ci opposition xaarul pouvoir xaarul kenn dafay woo ñëpp pour ñu defar le Sénégal de lendemain yan kàddu ngay wax ci loolu. bon xam nga le président Diomaye dafa am sas ak la coalition dañoo am sas bu rëy amaana mën nañ sax mooy ya dañoo yaakaar ne mooy gouvernement bi gën a métti non non parce que damay woo la jeunesse ñu am ñu am patience am dal parce que dañoo ñëw fekk ci dëkk bi mu nekkoon ci ay loxo dëkk du kër dëkk du nekk booy ñëw lal bale après nga tëdd dëkk da ko fekk ci ay loxo nañu mooy temps président Diomaye liggéey parce que jeune la. le plus loo xamante ni maintenant, population bi la ko du dafa en France wala dafa jóge feneen ñew yor réew mi mom fi la judo mo ngi ci mbay mi xamna problème sénégalais yi kon nañ ko moy touti temps mu am taxawaay bu ñi construire un Sénégal nouveau xaar bi yàgg na est-ce que xam ngeen euh, li jeunesse bi di xaar ci yéen euh, vu que xar nañ tànk tubéy pour euh, ñu yegg si fii ci élection mu gagné largement Sénégal gi yëpp ak li est-ce que xam ngeen jeunesse bi li nga xaar ci. bon li may li may li ma gën a may confiance rek mooy le président Sonko bon il disait toujours et que je ne vous trahirai jamais du mës a trahir jeunesse bi kon loolu gis nañ ko ci moom ci ay kàddoom kon nag bon nañ xam rupture totale day am. parce que am na loo xam lu ñu muñulul Macky Sall duñ ko muñul Sonko mais nag Sonko xam na loolu parce que xam na ni lépp lu muy def jeunesse bi tax ma koy def te ñun yaakaar nañ ni depuis 60 ba 2024 li am 2024 jëm 2029 mooy gën a neex parce que xam na méttitu population bi xam na problème jeunesse bi xam na problème carcéral surtout kon nag bon yaakaar nañ ni yéen wi dana of te boo ko Sénégalais yi jàppale. ban message ngay lancer le peuple sénégalais en particulier euh, le peuple massarois euh, pour pour ci jeunesse bi ak yooyu yëpp. bon li may wax mooy que surtout la jeunesse dañu ànd ak dal te ni Kër Massar dafa soxla lu bees Kër Massar dafa soxla defar te bi ñu fi nekkoon gis nañ ko li fi nekkoon tamit gis nañ ko kon nag nañu jàppale jeunesse bi. nañ jàppale jeunesse bi ñoom ci kàttanu yàlla nañ jàppale jeunesse bi ñu mën a taxawal Kër Massar surtout li fi manqué dafa bari Kër Massar département bi amul stade département bi amul police centrale département bi amul tribunal département bi bon amul dara loo xamante ni c'est un c'est un département digne de son kon ñoo ngi woo le gu le nouveau gouvernement bi nga xam yaakaar nañ les jours à venir dana taxaw lépp lu ñuy def nañ ci bàyyi xel gu Kër Massar. Kër Massar soxla na ay poste ministériel Kër Massar soxla na ay poste député Kër Massar soxla na ay poste PCA Kër Massar soxla na ay poste directeur général kon ñoo ngi ñaan buñu fat fàtte mukk Kër Massar parce que Kër Massar nak lu quoi qu'on puisse dire mom moy nday gis mom moy nday moy bay lepp fi la xewé Sonko bon genn bi gëna reuy ñu naan genn bi genn bi Kër Massar lako défé kon nak gëm naa ni yaakaar naa tamit duñu Kër Massar effectivement ñu bàyyi euh, andonon nga ak ak ak ak ay nit ci ci sa campagne ak yooyu yep euh, pour ko ñu bàyyi leen nga sant leen gërem parce que xam nañ ni campagne dafa metti xam nañ ni and ak ay nit dafa metti itamit. bon limay ñëk wax rek moy damay gërem samay jigeen ñi may andal di gërem jeunesse bi di gërem kilifa yi xam maa ngi and ak ñom ta nak dara taxul may and ñuy and ak man dara du fukki dërëm buma leen di jox mais bëgg seen gox bëgg la développement de la zone motax ñu and ak man di len sante bu baax di len geureum li ci kanam nak ñong koy baye suñu loxo suñu borom yene bi xam nañ ko xam nañ tamit ñom seen taxaway bu deugere deugere deugere lepp luñ def ci campagne bi suñu poste la jógee seeni fukki deureum seen 1000 francs lañu bolé def campagne kon nak ñaan nañ yalla ba suba ñuy bok ci ñi nga xamanteni ni boom di buumi ak keur Massar parce que développement wu Massar ak moy ñor rek moy ñor kon ñi ñi ñaan yalla di sant tamit bu baax euh, bon population bi parce que lépp looy def sànq ba léegi ñu ngi fii di yëngal di musique di tëgg bon duñ ci doo dégg mu kenn wax si kon loolu mooy wane kon nit ñi seen xol yi féex na jàmm am na te yàlla bu jàmm yàlla na jàmm boobu continuer di sant tamit suñu grand Mour Sow grand bu baax la il fait beaucoup pour nous day contribuer bon dooleem day contribuer alalem day contribuer lépp koñ bi rek moo ko ñor kon yàlla na yàlla def jàmm yàlla suturaal ñun ñëpp jërëjëf. di nuyu ñi nga xamante ne ñoom lañ bokkal liggéey bi di nuy le président Mara Dieng nga xam ne moom moo jiite le mouvement jug jot na bi nga xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne dañoo jiite jigéen ñi. di am di di am mbégte nag ak kontaante bu baax a baax ci interview bi ngeen xam ne moom ngeen ñëw fas yéene ko ñu defal fii euh, ñun nag sentiment bi nga xamante ne moom la ñu am euh, nga xam ne ci weer wi nga xam ne lañ nekk muy weeru jigéen ñi di weeru mars jeexagul ba léegi. ñu gis ni jigéen lu mu dugal loxoom en général yàlla dafay def mu sotti ñu ànd ak moom dañuy wax sax ni góor bépp góor boo gis jigéen ñooy dajaloo daal di koy fan boo ko xoolee ci candidature Anta Babacar gis nga jigéen ñi du ñu bëri bëri yëpp kenn sànni lu ko xob daanaka dañu fa dañu dajaloo rek ni jigéen moom mooy moom mooy moom mooy porte góor pour pour pour mu mën a egg ci kaw kon donc ñun suñ taxawaay am na solo trop. en général euh, en général jigen duñ ko duñ ko duñ ko bayyi mu nek leader ñun suñ toujours suñ position moy top ci ginnaw goor comme yalla nim mu ko santaane góor nekk kilifa jigen top ci ginnaawam di len may dole sa su nek mom tamit mu nek ko xamantene ne na xel bu baax jigen ñi nek ci ginnaawam xamne mënul mënul dem sans jigen ñi ñu nit ñu nangu ko muy population keur Massar muy population zone zone bi yëpp sax lay wax keur Massar yëpp ñu daal sentiment sentiment de satisfaction la am wax sentiment de satisfaction la am sentiment de fierté di and di gungé ki nga xamné moy mooy de président Mara ba ndam di ñu am tey ñu am ko. am ngeen am ngeen am ngeen ndam le soir le soir du 24 je peux dire et que euh, Inshallah, allahu rabi ñu ngi jëm ci lendemain meilleur est-ce que xam na seen i doléance bi nga xamante ne mën na ko rapporter au niveau du du de la présidence. comme ni koy waxé rek alhamdoulillah rabbil alamin ndax soo soo soo ñëwee fii di ko defee interview kon loolu mooy am nañu ko bàyyi xel euh, c'est pas pour rien mu jiite association jiite mouvement ba tey jii ay politiciens ñoo di ko seeti seetiwul kenn nag nit ñi ñoo ñu di ko seet si kon li tax nit ñi di ñoo di ko seet si bàyyi nañ ko xel xam na xam nañ jafe-jafe yi nga xam ne moo moo nekk fii moom li jiitu mu ngi nekk conseiller ci maire bi ci élection yi passé jigéen ñi porté nañ ko ak mouvement bi ba mu nekk conseiller kon xam na jafe-jafe yi nga xam ne moom moom moo nekk fi ci askan bi wax na ko léegi ci ci biir waxam fi ñu nekk ci ci zone bi nga xam ne dañoo jege Mbeubeuss pharmacie amu fi case de santé amu fi yu bëree bare manqué na fi infrastructure yu bëree bare manqué na fi amul stade yu bare bare bëri yoo xam ne population Masara Wa soxla nañ ko xam na ko en tant que doomu Euh, papaam nekkoon délégué xam bu baax jafe-jafe koñ bi kon yaakaar naa ne moom mat na mat na bu baax li nga xamante ne moom lañ ko tànnee. wante ñu bàyyi nga lancé benn message sa mbokk jigéen yi nekk ci biir Kër Massar yëpp ak li ko wër pour ñu bien bàyyi xel euh, ci projet bi ngeen di porté. waaye li may wax sama mbokk jigéen ñi rek moom daanaka sax ci loolu la ñu nekk. ndax jigéen ñi ci entrepreneuriat ci lañ nekk te yaakaar naa ne foo la ñuy continuer nekk li ma leen di woon nag mooy plus de patience yi nga xam ne moo nekkoon seen seen bopp yi ci jamono yi ci ginnaaw ñu bàyyi ko di bañ di wax ne dañuy xaar gouvernement bi ñëw dañuy financer gouvernement bi deful lii deful laa ñu xam ne jigéen il faut mu dugal loxoom ci développement goxam développe sa gox bu bu développé sa réew daal di développé kon li may lancer sama mbokku jigéen ñi mooy la ñu nekkoon démb ak barki démb ñu takku liggéey fas yéene jàppale ki nga xamante ne moom la fi yàlla teg mu mu fas yéene jiite réew mi ñu jàppale ko ndax mu am ndam. pare ngeen pour porter le président Mara ba ba ba ba mu jël euh, mun nañ ne benn poste ministériel. incha allah taala loolu loolu moom nekk lu ñu pare sax dafa nekk loo xamante ni suñu yéene la te ñu ngi liggéey ci loolu wax naa la ko léegi nee naa la mouvement jug jot na ak jigéen ñi porté nañ sa candidature ba mu nekk conseil ca mairie ba ñaaneen yàlla ëllëg wàññi boo gis ci benn lay commencé mu doon maire fii ci Kër Massar mu doon suñu fierté nekk député. man lépp xaj ci mën na nekk directeur te ay compétences mo ngi fi kon lolu nekkul lo xam dañ koy porter luñ combat combat buñu gëm la te te incha allah ci kanam raw li bët. mën nañ le travail continue. ah inshallah le travail continue. le travail merci beaucoup. merci li ma bëgg a dolli rek moy ko bon le mouvement bon d'ici quelques temps buñu buñu bu ñu cest dire que bëgguñu arrêté dañu bëgg d'ici demi après demi le travail ça va continuer parce que dañu bëgg def assemblée élargir suñu base. dañ bëgg a def assemblée les me les meilleurs délais pour mën a élargir suñu base parce que ñi ñuy woo ci Kër Massar bari na parce que dañuy war a préparer échéances yi di ñëw muy local muy législative kon nag ñu ngi woo ñëpp jour bi nga xam ne dañuy def assemblée danañ woo télé yi woo tamit rajo yi dañ bëgg a def assemblée boo xam ne day mucc ayib woo ñëpp ñu élargir base bi pour mën a préparer les les les échéances à venir jërëjëf. Fidel Afu, sen pingin Tamu.